waaye ku rey nan la rey. ku rey nan la rey. loolu nag loolu doo ko def du ma ko def imaam du ko def. Euh, njaga du ko def loolu. rôle loolu waaw moo tax man la am na fu état mu ne. état mooy man waaw war a rey koo wax daa ah. <laughs> ku ñu ne da ngaa yaa war a rey fekk moom dee ba mu dee bu yàgg. <laughs> <laughs> ku war a nag waaw. day waar yaa nga taxaw di ko xam. Mhm. ndeysaan. bëgg ba rey. jërëjëf Ndiaga. waaw. kuy xalaat ginnaaw sox bu tàkk doo fetal. dëgg la. Euh, kuy xalaat gannaaw sox bu tàkk doo fetal ma mhm. ngay feelu ca waaja ba muy jam ndaw sa wala mu fiir mhm. xalaatu toon na bu paree dañ koy tëj mhm. kuy xalaat gannaaw sox bu tàkk doo fetal ku màndi tamit lu la neex defal da ngay gis ku rafle amul tubay amul silip amul yére bu dem ca luuma ba yor cinq mille ko ay veer takk ko waaw dugg ci biir nit ñi waaw dugg ci biir <laughs> nit ñi daf yaramu neen Hmm. ñu bëri ñoo xam ne ni. Hmm. dee nañ avant ñu leen di rey te bëri na ci réew mi. la daloo nag ya rek ba gaynde ga bett leen ànd ak ñoom ne leen dama wéet ñu accepté ko ànd ak ñoom waaw nag wu weex waak wu ñuul waak wu maro bañ dem ba mu yàgg mu leen bu weex wi daf ñuy feeñal ñu nang mu faagaagal ko ba mu demee leen maro bi daf ñuy feeñal mu nangu mu faagal ko ba mu des benn ba rek daf ne ko lekk nga ma bés ba nga lekkee sama mbokk ma tey dafa jot rek bari nañu xale yi di àndal seen waajur duñ ci ànd mhm. ñu lànk ànd ak ñoom ndax mbëggeel wala ndax force waaye ndax ma ma mooy tànnal boppam ndax loolu la xale yi jël ba bés jot waxi mag moom day guddee àll waaye du fanaan uh-huh. te xale dana toog dana dana taxaw ca kaw di gis loo xam ne mag ma tëdd ca garab ga la muy gis xale ba du ko gis dégg naa ko ci waxi ndaw sax ndax nee na mm-hmm. mës na kaa ay aw faram parce mm-hmm. que kon mag ñi dañuy gis waaye xale ñoom mbëggeel la ñuy jël lépp nag ci làmmiñ ndeysaan làmmiñ xalima la am na waajun làmmiñ balaa mu ko du balaa sax moo raw balaa xalima la day bind dem mu njaga bi nga koy leeral ci lu bëri xew ci réew mi mooy li ñuy waxante du yomb rey naa la bu yàgg naa nga ma ko kafe te kaf wax yooyu noonu yëpp day yàq am na ñoo xam ne xaaxam ne nañ moytu làmmiñ am ñoo xam seen maam ci maam Khalifa Niass sëtam la maa koy ziar baax maamu sëñ Mouhamed Niass law na Niassène ne ko am sëtam la ne ko maam yaa ñaaw mu ne ko li may ñaaw yëpp samp naa kër waaye yow doo samp kër waa ji dund na ba faatu sampul kër tamaamam la tamaamam la nitu yàlla la mu ko doon maame nitu yàlla lu wax lañ koy moytu yàlla bu waxee xalima la li may ñaaw yëpp samp naa kër waaye yow doo samp kër ndeysaan ña ngay kafante di wax am ñoo bu ñuy kaf di wax yàlla bind lañ wax la yàlla di def maam Serigne Fallou ko waxoon maam Serigne Fallou Mbacke moo ne ah, ah. ma may jamono ji nag léegi mu ne ko asalaamaaleykum mu ne ko mu ne la maaleykum salaam maaleykum salaam waaw yàlla bu jàmm nekk ci yow nga am xew wax ko mu ne la du yomb. Mhm. waaw nga wax ay ay ay mba njaga sax ba démb génn na fi ay fecc yu raay ay fecc yu boxe yëpp ne loo xew ci jamono njaga léegi génne ko du fecc la macha allah am na fi ba kon jikko yi mooy feeñ aha kon moo ciy feeñ ci cër yi macha allah kon nañu moytu di wax lu rafet di xalaat lu rafet du njort lu rafet mhm. ndax lépp loo njort rek wala loo xalaat rek ëllëg mën na duñu fekk si xam nga mbàbba kumba mhm. Euh, yaa sayda maa bokkumba dafa jëndum xar xar ma am ñetti couleur ñuy xarum sereer xarum sereer waaw ñu ne ko xaar mi dafa ay gaaf bu ko rendi mu ne sama yoon nekku ci xar mi naa naa ko rendi ku ne wax waa dëkk bi yëpp di wax mënoon na ngaa bàyyi ndax làmmiñ li ci ñëpp wax mu ne dama koy rendi tabaski jot mu rendi xar mi dugg ci mhm. ko kaay mu wan la ni sama ah, oh. soxna sa génn na kii dafa rendi sama doom daal di rendi oh. soxna sa génn ñoom ñëpp ñuy xeex histoire bu métti am ca mhm. mu jël xar ma di ko sànni ca teen ba ca ginnaaw dëkk ba ba mu àggee sànni ko ci teen bi ba jëlu xar mi lonku ci téere baat bi ci mbàbba kumba daal di ànd ak moom dugg ci ci biir teen bi mabba kumba ma ba ko waa dëkk ba déggee ne nañ dem suufe ji mabba kumba ba nga ca teen ba mhm. daal di ñëw taxaw ci pind bi pind bi daal di rës ñu dugg ci bi fekk ci biir ah, teen bi gis nga dee bu yéeme te lépp lu ko waral mooy dee moo di làmmiñ wax xar mi nangam la nangam nañuy mooy tuddi nañuy wax lu baax buñ mënta wax lu baax duñ mën buñ mënta buñ mënta wax lu rafet mhm. duñ nañ nañu moytu wax yu bon falyaqul xayran aw liyasmut ñu jël ñi nga xam ne macha allah ñu ngi ci ligne bi ci 89 89 allo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Seyda Afsa ñu ngi lay ci waaw kay soxna si na nga def sa soppe la fii ci Mbour Sore Kébé fan la Sore Kebe Mbour ah soxna Sore Kebe Mbour maa ngi lay ziar baax a baax a allah. macha allah di leen jaajëfal. ñu ngi ziar leen wax ne li ngeen di wax am na solo lool. macha mhm. allah. Mhm. yéen ngi yeete di gindi nit ñi. Mhm. di leen ñaanal borom di subhanahu wa ta'ala yal yàlla sàmm leen. amiin amiin Kébé yal yàlla taxaw leen. yal na yàlla aar leen. amiin amiin yàlla dimbal leen dëgëral leen. amiin musal leen ci seytaane ki gaayam yow moom suñu royukaay nga suñu référence nga suñu idéal nga suñu lépp nga macha allah jërëjëf Kébé wallahi ñu lay bégee saa su ne nag merci beaucoup yal na yàlla dëgëral leen bég nañ lool macha allah aywa jazakumullah xayran xayaakumullah wa iyaakum ayyadakumullah wa taala baqaakum amiin salaamullahi aleykum wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah ndeysaan eh, nekk jàngalekat fële ca Mbuur di Soxna Kébé amiin mu mel nañ suñu xel dama sax Soxna Xadi Njaay bu Kawlax kon numéro yaa